jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne Production ngeen bës cloche bi bokk bi national international Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers villas, appartements, maisons, bureaux, commerces, immeubles et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro Contact 73 73. Agence Techno Habitat, la clé du bien-être. mbokki internet yi encore leneen lu soxal wàllu actualité de la semaine soxal na li nga xam ne moom mooy jëm ci élection présidentielle yi am ci Gàmbi su ñu war ko amal ci gaaw ji nga xamante ni ci lañuy ñuy ci juróom-benni candidat yi nga xam ne ñu ngi en lice kan moo war a ni jiite ëllëgu euh, Gàmbi euh, Gàmbi nag ku nekk xam ne depuis 2017 euh, dafa traversé ay crises yu métti yoo xamante ni crise politique ba tax ku nekk xam ne ne Yahya na n'avait pas reconnu son donc Euh, son échec ou bien sa défaite euh, face donc à un Adama Barrow qui donc qui, qui est venu euh, donc comme ça de façon surprenante donc de façon surprenante mu nekk loo xamante ni tax na. mu siis woon euh, gàmm bi nag je pense que tey jii ku nekk xam na ne quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dire euh, Adama Baro mi ngi fay def li nga xam ni moom moo di nag jéem a nit ñi am seen liberté même si aussi trop de liberté aussi tue la liberté du yoon euh, réew bu ci nekk aussi nga bàyyi liberté bi à 100% parce que l'État qui détient le monopole de la violence mais li ma ciy wax mooy ci li nga xam xamante moom moo soxal wàllum élection yooyu pour man d'abord. Euh, gis nañ ni ñi nga xamante ñoom ñoo di rek euh, les victimes de Yaya Jammeh gisoon ni recommandation bi xam ne commission bi ci doon liggéey pour euh, ñu ñu rek régler cette situation ba ndàmp ñooñu ba jox leen seen cër àq ak yelleef bi ñu wàggati woon Yaya Jammeh bon gis nañ ni am na signature bu ñu ci def par rapport ak ça et ñu ngi doon xaar benn livre blanche boo xamante ni livre blanc boo xamante autant pour moi Adama Barrow war na ko fësal ci recommandation yooyu pour man aussi euh, Gàmbi li ñu war a def mooy ginnaaw ñoom ñoo doon jooy ne dañ leen a tëj dañ leen a napp dañ leen a sonoon fatt nañ leen amuñ liberté indi nañ kenn mais bu benn nit ñëw si ginnaaw pour xam seen taal parce que gisoon nañ fi en deux mille euh, dix neuf xaw ma côté yaakaar naa deux mille dix neuf manifestation yi nga xam ne doon am parce que lan euh, kii dafa ne deux mille trois mille kii trois ans lay def ci nguur gi. mooy sérieuse euh, sérieuse boobu noonu nga doon dégg maintenant trois ans ku nekk xam ne ne ñu waxante dëgg am réew kenn mënu ko liggéey ci ñetti at surtout réew Afrique yi nga xam ne ñu sous-développé te aussi lool sedd na ne pas respecter le calendrier républicain te ñoo doon woote démocratie ne Yaya Jammeh def doon démocratie monocratie la doon def loolu moo ñu arrivé ci suñu président bi ba mu koy wax ne trois cinq day wàññi at yi waxu kuy ngoro la woon rek bëggoon lu neex rek ak kontaan yàkkamti woon ñëw ci nguur waaye xam na ni charte mi mayu ko loolu kon Gàmbi nañu am seen fula aussi jéem a liggéey seen réew jéem a xool naka la ñu avancé bu leen kenn xambal seen taal adduna bi nag li ko li ko li ko yàq mooy ñeneen sa biti ñooy xam bu di jaxase yi ci biir dañ naan les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains mais souvent les ennemis de notre pays ce sont les habitants de ce pays parce que en complicité dañuy ànd ak ñenn ñu leen di ruux di leen jaxase pour man Gambie a besoin de stabilité parce que la stabilité de la Gambie aussi nous incombe ñun ñi parce que ku nekk xam ne nous entretenons de très bonnes relations entre les sénégalais et les gambiens donc loolu aussi ñoom dal am fa jàmm am fa dafay nekk suñu avantage ñun tamit lépp li nga xam ne ñu ngi koy def fii aussi day am seen day si lu baax day nekk seen avantage kon pour man euh, euh, barrière bi amoon ci diggante yaay jàmme Gambie ak Sénégal ci temps wu yaabe yaay jàmme ku nekk xam ne les relations n'étaient pas fructueuses mais avec l'arrivée de Barrow on a vu tey la réalisation de ce pont loolu aussi ñu gàcce ngaalaamal ko le chef de l'État Macky na ba loolu aussi ñu réglé ko ak yeneen point yoo xamante ni vraiment grâce à cette euh, euh, stabilité bi am mu mën a am ak cohésion bi am ak euh, complicité bi am kon loolu dañ ko war a suuxat ba xamante ni tey jii comme Afrique dañ ñoo balkaniser ñoo tas ñu tubaab yi ñëw nañ jaxase ñu anglais ñoo ñu jaxase ñu xaajul dëkk bi ñoom ñu def seen union defar seen dëkk ba mu baax nañu fexe ba erreur bi nga xamante c'est l'erreur de la colonisation ñu corriger ko mais ñu corriger ko de façon efficiente et intellectuelle boo xamante ni kenn waruñoo taaral suñu réew yi kon gàmm mi dañu jàpp ne ñu ngi tànn seen njiitu réew ka fa yàlla yi teggi na xam ne yàllaa ko fal parce que yàllaa yor nguur ka fay teggi tamit bu dee baroom moo nar a génn na génn ci par la grande porte gis nga di génn ci kër jaar ci fenêtre bopp bu mbokkoog bu tojoog lépp a waaye jaar ci bunt ba ñu ubbi la bunt bi ni lal tapis woy wu rafet gënu koo am kon nañu suuraale ci woy wu rafet te l'Afrique dafa soif l'Afrique a soif de si de si leader mooy ay ñoom Thomas Sankara mooy ay ñoom euh, Nelson Mandela ñi nga xamante ni dañu dañu rayante pour Afrique ku nekk xam ne ne le le président Paul Kagame est en train de faire de de bonnes choses ci réewam. réew bu ci nekk nag ka nekk njiitam moo koy defar ak askanam ñu fexe bi stabilité am suñu sur région bi ñi ci war waruñu xam suñu taal fii dañu indi ay moo ay slogan ay jihadiste ak ay terroriste ak extrémisme et cetera di ñu mel di ñu jaxase di ñu di financer suñu ay politique di leen samp loolu moo fi war a jeex que la destinée de l' Afrique hmm, soit entre les mains des Africains pour qu'il y de la stabilité et de la paix